jërëjëfee Baye Niass jërëjëfee Baye Niass jërëjëfee Baye Ousmane jërëjëfee Baye Ousmane jërëjëfati Baye Ousmane jërëjëfee Baye Papa Diallo alhamdulilah ginnaaw bi ñu sante yàlla ju julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy gërëm ki nga xam ne mooy Baye Omar Diouf muy nit ku baax tamay sédé lolu parce que yaakaar ni bis bu melni képp ku la ko darajaale ku la bëgg la mënon nañ ma tuddé tay lenen waaye tay dafa xol bis bi nga xamni bisu tuddu yalla la mu ñëw bolé ma ci paré yoy non li nak contane na ci torop ba dama koy gëreum su di sédel bay Omar ni ku bëgg yalla la ku bëgg yenente la ku bëgg cheikh tidiane la waaye ku jeex ci baye ousmane la ku jeex ci baye papa Diallo la tamit kaddu yi nak mënta gudd parce que guddi na ba pare te programme bi dafa wara wéy te dafa bëri ñu bëri ño xamné manam fañ dëkk sore na lool te ñu wara déllu di jaajeufal Baye Omar ci bis bi ni di wax ne am na lu ndaw daal lu lool لك على نعمة الإسلام والإيمان والإحسان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه يا الشيخ اغفر لنا هذا الأخضر وتعطفي بنظرة تأتي لنا بزفر نيجي سانت يا الله نمي جلت لي أنت صلى الله عليه وسلم waaye mbooleem gën mën day rek ñu koy gërëmee imaam al bar borom faydu aktaru zamaan ki nga xamante ni moo ñu woon woon woon motu pas bi fii di mu an asasum ilaa xadratil bari rahim ilaahina bàyyi ne su nam nam ci yoon sallallahu ci bi kenn la te yaakaar naa ni loolu sëriñ bi doon waxtaane léegi ñu ngi jiital nuyoo bi ak ziyaare sëriñ bi Baye Boun Thiaré mi nga xamante ni moom moo ñu yar ci yàlla moom moo ñu tette lépp lu ñu xam ci ko nandal kon sëriñ ñu ngi lay ñaanal bu baax yàlla defal la taw taw ak taysiir yàlla jotalal a mboolem càkkute ci barke Cheikh Ibrahim ñu ngi ziyaare Baye Papa Diallo bu baax mu nekk sufiyanke nekk ku yaru nekk ku dal nekk ku am adab nekk waliwu yàlla xaqan ndax li ñuy wax ni ñu xam nañ ci dara ku am dal mu ngi nii ku baax a nii ku yaata ngi nii kon sëriñ bi nañ lay ñaanal bu baax yàlla defal la tawfeex yàlla may la gudd fan wéral say cër yàlla barkal njabootu zaahir bi ak njabootu baatin bi e, e, di nuyu ki nga nag moom woo ci xéewal yi muy Baay Omar defal ñu xéewal yi nga xamante ni alquran wax na ne fondement bi ni'mati rabbika faqaddis bu leen yàlla defalee xeewal da ngeen koy waxtaan te lii bokk na ci xeewalu yàlla yi ndax képp ku woo ci tudd yàlla kooku kat yaakaar naa ni a mu jël bés bu tuddee ko nag ki nga xamante ni mooy Zeyda Astou Bathily di sama soxna wax dëgg fa yàlla ñoom ñaar ñu nekk ay nit ñoo xamante ne ay complice lañ dañoo déggoo te ak muy ma naan Omar moom moo tax mu xam yàlla kon loolu lu ndaw loolu lu kawe la eh, Omar Zeyda nag gërëm na la bu baax gërëm na la bu baax baax baax daanaka moom ma wax yëpp yëpp man mënuma la ko wax wax dëgg fa yàlla nee na ku la bëgg la ku la sopp la te te bés bi kontaan nañ bu baax astu lii nag sas la ndax nit mu jëlee lu toll ni jotaay say baay mu tëddee la ko da war a góorgóorlu ci yàlla yokkute la ndax dara gën a kawe jotaay say Ibrahim mu la ko kon loolu yokkute la kon Baye Omar Assouneur mu ngi lay ñaanal mu ngi lay ñaanal bu baax a baax man nag lii samay wax wax la Baye Papa kii ku baax la Baye Omar moom ñun ñoo dëkk daanaka bu ñu dëkkul cinq ans ñu jóg ci six ans wax dëgg fa yàlla mosul amul ak kenn xaar yàlla ku neex dëkkal mu ngi nii koo xam ne alalam da koy boole lépp li ma gën a neex ci moom mënoo leen toog tootaay te indiwul benn masala pour rek ngeen débat moo ngi moom loolu dëkkee ak mu nekk bu baax man nag caajaay dama fay am wàll wax dëgg fa yàlla nekk ñëpp mun naa ne léegi ay mbokk lañ alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokki jullit yi waa PIC Ibrahim ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax kàddu yi nag xam naa du gudd ndax dañ fi ànd ak suñu mbokk suñu xarit si yàlla muy Cheikh Ibrahima Sène moo nekk ne en jaune bokk ci parrain yi nga xamante ni lañ tuddee daayira bi muy xaritam di mbokkam ci yàlla di Seydina Omar ñu ngi lay ndokkeel bu baax Ibrahima nag mu ngi bokk ci daayira bi ñuy wax Sabilu Salaam di fii si jegeem sëriñam di Cheikh Ousmane Faye di njabootu Cheikh Ahmad Dam Ibrahima Niass xadara bi yëpp ñu ngi leen di ziare ñu leen di ndokkeel ñu ngi leen di ñaanal yàlla sëriñ bi sax ci boppam bëggoon na teew waaye jamono yi dafa nekk ci préparation gàmm bi nga xamante ni mooy gàmmu ñoomar war a nekk ci samd bi di ñëw moo tax teewut te délégation bi tamit bu demee nii loolu moo tax jamono yi yëpp ñu ngi ci li nga xamante ne mooy xatmu bi di ko jàng foofu noonu ci di dernier bi comme ni ñu koy defee Medina Baye loolu moo tax waaye nag Ibrahima ren na mu ngi ci kontaan bu baax bu ñuy ñëw rek ñu ngi koy waxtaanee mu ne ma gàmmu euh, euh, daara bi mën lañ ko tuddee dama bokk ci point yi mën na loolu de sant yàlla la ndaxte am na ñi nga xamante ne ñu ngi feneen ñu leen di tuddee leneen kon bu la yàlla boolee ñu lay tuddee daara santal yàlla am na ñoo xamante ni kenn ñemewu leen tuddee lu dul lii ndaxte lii moom mooy suñu sàkk moom lañu am te buñ sañoon chaque jour ci lañu xel di fanaan ndax moom la yàlla gërëm moom la yonent bi gërëm moom la Seex Tijaan gërëm moom la bàyyi gërëm te ñooñu lu ñu gërëm rek moom lañ gërëm moom nag am na décoration bi nga xamante ni indi na ko euh, Seydina Omar xam naa mi ngi nii day ñëw ñu jox ko ko loolu la amoon lu may wax sëriñ bi Baye Papa ñu ngi lay ziar bu baax sëriñ bi mu ngi lay ziar yàgg nañu xamante dañ doon gisante ci gàmmu bi am. yàlla la kàddu yi xam ne. Zeyda ummi nga xam ne ñëpp xam nañ ne soxnaay Baye Cheikh Diouf la moom moo ñu yobante ay kàddu di seede rek ci moom ndax defe naa ne nit buñ ko tuddee jotaay ñu jox la kàddu ne la waxal ko comme Baye Tidiane ni mu koy waxee nee na jarul sax guddal seedeel rek li mu la wax wax ko wala nga seedeel li nga xam ci moom Zeyda ummi nit ku baax la ku teey la ku dal ku yaru la li ma gën a yéem si moom mooy foo ko fekk rek dafay noppi man du si gis ak xool ma bu baax li baay waxoon ne taadduban fi zahirin wa batinin bi raqal mar ulil mawatini taalibe na nga am yar ci lu feeñ ak ci lu nëbbu ndax loolu mooy lay yégee ci maqaama yu kawe yi mu ngi ci moom bi jël tarixa tijaan jotee ci moom dafa ñëw sama kër ne ma dafa bëgg jël tarixa tijaan ndax dafa gentu baba lamay ñass doomu Baay Ñas xam nga kon kooku ñu koy ay mbiram ci haybu mu ñew ma may ko kurus mu dem baba Lamin may ko tarixa tidian bi tarbiya àggee si àgg si yàlla ci mom tamit dafa tëddaat gént ñu ne ko demal si diw ben jam bu xébu bu tuddu Cheikh Ibrahima Ndiaye mu ñew suma kër ànd ak ay sédé nak néma ñi ñoy sédé ci gi ñaari raqam mami la keneen ki fàtte naa ko mu ñaan askaaru tarbiya ñu may ko tar askaaru tarbiya mu tarbiya tarbiya bu métti nag daanaka damay wax ne bis bi muy àgg ci yàlla dama ko fàtte mu may dee bàyyi duudu Zeyda Umi Ndiaye mu ngi àgg ci yàlla ci bisu àjjuma xadara juma bu bu yéeme bu ñu xadara juróom bi mu àggee ci yàlla man juróom dañ maa dañ maa may xaalis bu bari ba pare may ma xaru laadum bu seer kon kooku dëgg-dëgg nit la koo xam ne nit ku baax la nee nag kontaan na si jotaay bi buggoon na teew waaye ngant moo ko téye jëkkëram Baye Cheikh Diouf teew na ba fii bi mu ñëwee dafa ma ne Baye Ibrahima comme yow yaay sëriñam mais man du ma sëriñam sama mbokk taaliba la man képp koo xam ne maa la jox askaaru tarbiya su ma mbokk taaliba la du ma sëriñ ndax man du ma sëriñ waaye maa ngi seedal mbokk taaliba yi ne ku jëflanteeg man ci lu baax la xadara bii nga xam ne bokk na ci muy busaanul arifin amul dara loo xam ne mos nañ ko woote ci xadara bi mu des ci ginnaaw mooy ci alalam ak ci jëfam ak ci léppam te li muy jëflanteeg Baye Modou Gueye sax moo raw sax man li muy jëflanteeg man kon ñeme nañ seede ne taalibe la ndax jël na tarixa tijaan tarbiya na àgg si yàlla ba pare yàlla may ko ndollal may ko jëkkër joo xam ne jëkkëru taalibe Baye la muy Baye Cheikh Cheikh Diouf suñ ko waxee ñëpp xam nañ ko Cheikh assurance dunam gi yëpp da ko xidmaal sëriñam muy Baye Papa Diallo te loolu defe naa ne même bu ma ko waxul sax Baye Papa bi xam na ne dëgg la ñas bële xam na ne loolu dëgg la Baye Cheikh Diouf ku jëflanteeg mbokk taalibe yi lu baax la nit la koo xam ne alalam yëpp taalibe Cheikh Ibrahim ñoom ñoo ko moom te loolu yombul kon ñu leen di ñaanal yal yàlla garanti sëy bi Baye Papa ñu lay ñaanal yàlla bu baax yooyu ci yow rek la ñuy tëjee foofu la ñuy yemale kàddu yi mom ken amul fayam ndax li Baye Tidiane wax legui doyna doyna rek ñu ne suñu amone seede ñeme nañ seede ne wali malaa la te wali mala ay bi ñëpp nangu nañ ne xubbu bakri salaatul fatiha si moom la wàcc waye kërok ba mu dajee Abdourahim al Qalawi gis nga nim ko def defaratal ni nga defar we mu ne ko bay li ngay xol mu gumba xubbu bakri dem duggu xalwa juróom ben fan juróom ñaarel fan bi yonte yàlla Muhammad sallallahu alaihi wasallam recevoir ko ne ko munuma laa bal delul ci wali yalla bobu abdourahim mom rek mo la meuna djegal bi mu demé da ko ray rek mu xol kon baay papa ñu lay ñaanal ñu lay ndokelé ci maqama yoy nga ñaanal ñu yalla bu baax alaykum ba ñu ngi ñaan digal ñu wax jere Baay bañas ñu wax jere Baay bañas ñu wax jere Baay bañas ñu waxaat jërëjëfe Baay Asamaan Jeng ਉਹ ਹਰ ਜਰੇ ਬਾਈ ਬਣ ਚਾਰੇ ਉਹ ਹਰ ਜਰੇ ਜਰੇ ਬਾਈ ਡਾਲੇ ਬਾਈ ਪਪਾ ਜਾਲੋ xamna kaddu yi bari wax naka baye tidiane wax na lepp te ñu ñoo bokk xadara di wax ay kaddu si baye omar diouf li nga xamantene presque ñoo dëkk ginaaw raay waktu dañ wax beri beri, lu bari bari bari li nga xamantene bu mu ne day dem Dakar dem liggéeyi sëriñ bi ne ko demal képp koo xamante ne seen xaal méngoo na rek demal nga ànd ak moom. bu mu demee ginnaaw raay di laajte mu xatam Baye Ousmane ñu joxoñ ko ne ko bàyyi du caara mu ngi nii mu ñëw jaayante sëriñ bi. bu mu jaayante ak sëriñ bi sëriñ bi man la man la ko njëkk a booleel ginnaaw raay bi nga xamante ne man la njëkk a xamante ne ginnaaw raay muy Ba Amoy Diouf. muy mbokku taaleem bu baax mbokku taale boo xamante ne ku bëgg sëriñam ku bëgg Baye Ousmane mun naa wax si moom lu bëri billaahi di ñaanal tamit di sant mbokku taale bi yi nga xamante ne ñoom laa àndal muy Baye Abdoulaye Goudiaby bi nga xamante ne mooy suñu président ñoo ànd ñu si jotaay bi di nuyu Baye Tidiane Sarr Asu maa ngi koy ziyaare baay Saalum Baye Barham Wadd maa ngi koy ziyaare baax di gërëm Baye Amar ne ko Baye Amar kontaan nañu baax a baax kontaan nañu baax a baax billaahi parce que bés bii ni nga ko doon feetee neneen ni nga ko doon feetee neneen mais suñu demee ba Baye Amoo Diouf ñëw taxawal programme bi ñu bàyyi lépp lu doon def ñëw di teew si programme bi rek sant yàlla kon Baye Amoo ñu ngi lay ñaanal yal na la yal na yàlla dëgëral la si barki baay kon baay Omar kontaan nañu bu baax a baax a baax waaw di ñaanal tamit mbokk bi nga xamante ne moom moo fi euh, euh, génn àdduna muy baay Moussa bi nga xamante ne baay Omar moom moo si sëriñ bi pour sëriñ bi soobu ko tarbiya kon baay Moussa Jon ñu ngi koy ñaanal yàlla baax a baax fu mu jëm yàlla na ko gënal fu mu jógee baay Omar su ko neexoon mu ne ginnaaw raay bépp mbokk taalibe bi bu xam bu bu ko tarbiya dama koy indi si sëriñ bi mais amul sikki bépp mbokku taale bu ñëw da koy indi si Baye a ëpp na 20 personnes yi nga xamante ne Baye Omar Diouf indi na ko ñëw jox ko sëriñ bi sëriñ bi tarbiya leen kon Baye Omar ñu ngi lay ñaan yàlla baax di wax ginnaaw raay yëpp kontaan nan yal na yàlla fayante ak yow si a baax amoon na lu ñu indi woon rek. la ba ظلمات من تناني والماء والمعاني من كيراني أو مباني كل سواي كسراب وابقرها للمعاني إنني إنني إنني قبل البرايا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 walam yakul lahu kufuwan ahad wassalaatu wassalaamu ala rasulillah seydina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu maa ngi nuyu kilifay jataay bi di nuyu sëñ bi nga xam ne moo taxewoon waxtaan wu am solo wi sànq bi ñuy dugg see nga xamante ni nii boo mosee lenn ci jàng rek di nga xam ni lim fi wax am na solo waaye am na njariñ ndax boo déggee na ko tënke rek ci wàllu maarifa da ngay xam ni lii lu tegu ci xam-xam la di ko ñaanal borom bi subhaanahu wa la yàlla dolli xam-xamam di nuyu bay jàllo nga xam ni suñu wóllëre la damay wax ci jataay bi maag moom ñoo bokk CI ba sem 2 ci njàng nasaraan bañ fa jógee kenn ku nekk am foo jaar tey jii ak njabootam ñu ngi ci sama daara di fa jànge alxuraan ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal borom bi subhaanahu wa taala guddal aw fanam mu mel ni itam lii nii nga xamante nii dañ ko jëmmale jëmu jee ñu àndal muy Kaasa Gaye nga xam ni Babacar gay mooy aw turam ñu gën koo xam ci Kaasa Gaye lépp loo xam ni Pabli wax na ko ci moom rek am na lu bëree bëri lu ci des caajaay gépp dañuy firnde ci moom ne baax def na ko yaatu na te itam ku ne gis na ne képp ku nekk wëllëreem soo amee xew day ñëw jël yépp téye ko ci loxoom moo koy taxawe tey tuutalul kenn xeebul kenn ndax lii firnde la ci lii ngeen ko jëmmale dafa dem ànd ak ay moromam yi nga xamante nii ñoo bokkoon jeunesse mu doon délégation bu yaatu nga xam ni ñee ñëpp toog ci ginnaaw ci lañ bokk mu ànd ak ñoom ngir jëmmal bis bi wan leen ni li ngeen ko jox xeebu ko fonk na ko te rëy na ci moom lool moo tax bi mu waxee ne dama am luñ ma tudde muy ay jàng ma bëgg nag képp koo xam ni sama xarit la sama soppe la mu ñëw gunge ma ci ndax lii doonut lu tuuti ci man ndax ki ma ko jox fonk naa ko te am na fu ma ko teg kon moo waral bi ñuy ñëw ñun tam ñu ñëw ak délégation boobu noonu kaasa nag mënul wax ci biir biiri nit moo tax mu jël kàddu gi teg ko ci samay loxo ma doon magu groupe bi ma ñëw taxaw fii di wax waaye nekkut ak ngëneel wala xam-xam boo xam ne moo tax sax ñu ma jiital waaye mag leen ci ay at rek moo waral ñu jiital ma ma ñëw taxaw fii yor kàddu gi sant na leen nag ba fa sant yam lii itam nee na fonk na ko gis na ne lu rëy la te moom it mu ngi koy màggal gën leen a ñaanal borom bi subhaanahu wa yàlla doolu leen a dëgëral man nag kontaante laa ci am ndax maa ngi door a fekke seen jataay comme nii waaye li ma fi dégg daf ma jële kaw lool sax ndaxit it xam-xam dëgg lañ fi dégg waaye ak maanu te lañ fi dégg waaye dégg it ñuy suuxat ci mag ñu baax yi jëme ci wàll wu ne te xam nañ ni senegal ni muy doxee tarixa yi dafa yaatu waaye bi ma dégloo ki doon wax kenn ku ci nekk laal na ci wàllam waaye wax fa lan la fa mag moomee wax te loolu rek daal moom mooy xam-xam te loolu mooy koo xamante ni day wommat ay nit jëme ci borom bi subhaanahu wa képp koo xamee ne réere woon na ci mbir it su fi ñëwee dina gindee ko xam ne lii kat mooy li fi nekk te mooy dëgg te dëgg fu mu nekk dëgg rek lay mën a doon leneen mënu koo doon lu dul dëgg kon yal na leen yàlla sàmm yal na leen yàlla kartanal yal na yàlla jëmale daara yi kanam wal akwaanu xat xuliqat fa zaaka yarifuhu wa kullaalaati بمنبر النور يقطع سيق منقذنا يوم القيامة يرقى دون مريات فعند ذاك ينادى ذاك خدوتكم مميدكم بفيودات العنايات فأتى فوق رقاب كل وتعتو ولا يريم يراقى كل ساعات بالله بالله هذا سيق وارثتا hal musal muntaqa fi kulli ayati sequ tijaani ayna tijaani tijaani barama sequ tijaani ayna tijaani tijaani barama sequ tijaani ayna tijaani tijaani barama sequ tijaani ana tijaani tijaani bara bàyyi seexu tijaani tijaani tijaani barama tijaani tijaani tijaani barama bàyyi yaa ngay raamal bàyyi ñoom xam nañ kan mooy bàyyi tijaani barama seexu tijaani ayna tijaani tijaani barama baay ñoom xam nañ kan mooy baay Tijaani Barama Seexu Tijaani ay na Tijaani Tijaani Barama mu umpul kenn ne bi muy ñëw caajaay dëgg dëgg papam ci loxom la ko tegoon mu nekk ak moom ci këram mu ne Omar masu ko def lu ko naqari masu ko wax lu ko naqari masu ko wax bàyyil wala mu koy tere mu xataa bi mu ut soxna sax mu ne moom la ko wax mu dëgg mu dem utali ko soxna nee na mu ànd soxnaam jox ko teg ko ci loxoom ne ko yow lay nekkal du ma ko yóbbu fenn mu ne mook soxnaam soo ñu dëkk ak moom dëkk bu rafet ci këram ba ni yàlla di defee dëgg-dëgg ñu am fii daal fi fiy tuxu si xataa buy jóge foofu di ñëw fii nee na jàmm rek la fiy fekk salaam rek la fiy fekk bànneex ak mbégte rek dëgg-dëgg moom lañ koy teeroo nee na mi ngi sant Omar bu baax nee mu ngi koy gërëm nee na mu ngi lay ñaanal yàlla yokkute nee na sa jotaay bii nee na yàlla nañ koy defee ci terrain maam xaalis bi nga xam ne day nekk jotaay bu yaatoo yaatoo yaatu Papa Issa nee na kontaan bu baax a baax. waaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di siyaare bu baax di leen ndokkeel ci bés bi ñi ko teewee yëpp yàlla nañ ko teewee déwén mbooloo mi gën a yokk jàmm bu ànd xéwal yàlla nangul suñuy koor.

yàlla boole ñu ñu ànd dem bi ñu àndee dem kóllëre boobu mooy daw ba tey mu nekk nit koo xam ne yàlla rek la bëgg te bàyyi rek la bëgg te lu baax rek la bëgg euh, dama ko dégg ci say wax pour ma ko firndeel waat ko rek parce que dama wéet ak moom bokk ak naag moom néeg fu mu mës dem ak moom rek damay def moom man ak moom ñu doon benn bi ñu demee Mauritanie Omar moo ngi wër fan la ñuy zikkaree zikkaru la euh, Baye bi ma bi ñu waree liggéey ma ne ana Omar ñu ne Omar dafa dem xadara depuis 2013 kon tey lii bu demee ba tey jii mu woote mbooloo mi ñu fekk si ko nekkul lu ma bett parce que dafa nekk loo xam ne da koo gëm te di ko def bu doon gëmu ko lii du ko ci fekk waaye nga gën góor góorgóorlu ci yoon bi eh, yàlla gën la dooleel te incha allahu bi mbooloo mi day jëm kanam parce que li muy def nii da koo gëm man dama waroon a dem voyage mais bi ñu déggante mu wax ma jàng yi comme daaw waxoon na ma ko fekkuma Sénégal ma ne ko ah man dama war a génnaat nii voyage waaye excès du ñu am nu ñu def rek mun ne ma déedéet man soxlawu ma lool sa présence laa soxla noonu laa def bi ma jógee fajar bi war a dem Gàmbi dama mujj a def escale ci moom moo wàcc ñëw pour ndokkeele ko bes bi waaye yàlla nañ ko téewe ay déwén yu bari mu nekk gor li ma yóbbu woon ci ay nit mot na fukki personne waaye moom moo ci dese koo xam ne moo may nemmeek nga xam ne gor piir la te alal du ko booleek yow gor piir gi toog toog ñi ma yóbbu woon moom laa mujjee xam moo mujjee ñëw ñaari oto yi ñu taxawal yëpp moom lañ doon xaar xawma ko mais bu ma egsee vraiment ba tey moom rek laa deseel ci ñi ma yóbbu woon ñi nga xam ne ñooy daw kóllëre moo tax bi ma gañewaatee projet Gambie dama ko woo bu mu ñëwaatee ñuy liggéey ba faf ndog amaat nekkoon nañ Mauritanie benn feebar dal ko bi ko feebar bi dalee gisuñu benn mbokkam man rek maa nekk ak moom maag moom hôpital ñuy dem ak a ñëw mu ne ma ah dinaa dee ma ne ko yàlla rek a fi ne doo dee de incha allah yàlla ñu ba mu ñibbiseeg jàmm bu ñu demaatee Gambie feebar boobu bëgg ko attaqué waat man mu ne ma léegi bàyyi ma dem Sénégal ma ne ko du ma la bàyyi nga dem Sénégal maa ko yeb sama oto indi ko ba seen kër gi te mu di gor piir ku ku gëm li muy def la te ku bëgg nit la ku bëgg ku bëgg bàyyi la loolu dama ko xam parce damaa wéet ak moom dama nekk ak moom gor pire a ngi ni toog te ku bëgg diine ngi nii toog kon mbooloo lu mu ci am rek dara jomb ko ci daf dafa da doon dem moom kese kon lu ko ci fekk rek ko cee fekk taaw man maa dem tuddi ko kon sama xamel ak moom du hasard du hasard avant tey la kon moo tax ma bàyyi sama yitte yëpp ñëw te bi ma ñëwee aussi wax dëgg fa yàlla waxi yàlla rek ngay dégg waxi bàyyi rek ngay dégg te bàyyi ku baax la bàyyi bu la yàlla mosalee ba nga gis ko ci ay gént loo doon def di nga mën a góorlu man murit laa de sëriñ Touba rek laa gëm waaye yàlla daf ma wonaleeg baay billaahi wallaahi gis naa baay billaahi wallaahi laa wax fa ma ko gis ku jàpp ci yoon bi ku ci kenn ku ci ne loo mën a yokk rek nga góor parce que baatu laa ilaaha illallaah bi ngeen di zikar dafa neex man fu ma koy diglu rek sama deretay daw sama du ma mën a toog du ma mën a taxaw la ma yëg man rek maa ko xam te baay newul ci caaxaan bàyyi nitu diine kese la soo ma ko yàlla woon nag laa gis parce que fu ma gisee Serigne Touba rek balaa diir rek ma gis bàyyi te du ma Serigne bàyyi yàlla may baaxee yooyu kon yoon bi nga nekk da di yoon boo xam ne du lu ñuy làmbaatu yoon bu leer la waaye ku ko masul mënoo koo xam dafa di yoo xam ne du looy wax nit ki rek mu gëm ko si saa si il faut nga dund ko nga jëfe ko mu sax si sa xol bi yàlla looy yëg la bàyyi tamit looy yëg la naafek mënu koo gëm billaahi mag ñu ñu am yàlla rek a leen di fay waaye ñoom ñoo ngi ci lu leer ku ci góor góorgóorlu rek yàlla defal leen tawféex kon ñun ñi ñëpp yàlla nañu yàlla defal tawféex tàbbi ñu si seen barke wax dëgg fa yàlla lii rafet na lool yàlla na dem bay nekk ay tanti tanti ñëpp di fekkee di di tal mbooloo mi gën a yokk man xale yi nag wax dëgg yàlla mënu ma leen fay ndax ba ma yàlla booleeg seen yaay ba léegi mënu ma am ci ñoom lenn lu ma metti bis bu ne ci lu ma neex lu ñuy dox ci loolu la ñuy dox ci loolu la ñuy def kon man amuma seen seen pay seen yaay it awma payam yàlla leen yàlla fay. bisimilah asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu maa ngi nuyu ku si nekk turam santam maa ngi wàccee ku si nekk wàccu waayam. waaw bu ko defee ñu bu ñu ñëw ci moom xale la woon noo kon ay am am koo xamante ne dafa jàpp ne xam na yàlla fekk yoo xamul yàlla ku réeree yàlla. kon boog ñun bu ñu ñëw ci moom duñu ay am lañu woon xamuñu woon dara ñu ñëw ci moom depuis 2008 pour jël askaaru tarbiya parce que boobu dëggoon nañu yàlla dañ koy xam dañ koy xam rek fekk yow loolu dëgg la ma ne xaama dem essayé ba xam daa gaa li ñu wax ne dëgg la xam naa moom yaaye dañ maa bëgg a naxasaay rek est ce jox ma seen dox bi yàlla boole ma ak moom depuis 2008 ba léegi ma nekk ci wetam mu jox ma tarixa tiijaan jox ma askaaru tarbiya ma tarbiya 15 jours am fat ko ci yàlla kon ba kooku maa ngi gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax baax aw ma fayam ku suufe la ku ma yar la ku rafetal sama yar la koo xamante ne saa su ne rek wax dëgg yàlla muy xool yu baax dama conseillé doom bi nga xamante ne moom la su ko koy gërëm bu baax di ko sant aw ma fayam te su ma doon wax fii fii ba suba du ma jeexal ci moom di si teg umu enrifin mooy yaa aja bi eh, nga xamante ne moo jiite xadara bi nekk ku baax koo xamante ne mosu ñëw wootee mu ratte ko heure bu ñu wootee rek mu ñëw moo tax sànq bu ma toogee lu yàgg gisuma ko dama mujj wax sëriñ bi yaa aja mbaa jàmm ko tey mu ne ma mu ngi ñëw départ na kon ba kooku su ma ko toogee du ko gis rek sama xol day sedd te sama xel day daal parce que da ko dund ak ñun bu ko defee di tuxu sëriñ bi muy général général dañ ko wooyee muy Baye Doudou Thiaré nekk koo xamante ni 2008 laa tarbiya 2010 ma dem dakaar ne xaama laajte fii ki nga xamante ne moom mooy muxadam bu Baye Ousmane moo sëriñ bi xam nga man moom ci ndigal sëriñ bi rek laay dox mën na ma foog mën na ko pikir mën na ma demal si Baye Doudou Thiaré moo la gën a jege ma dem ci moom 2008 ba léegi maa ngi ci wetam ñu bëri sax dañooy jàpp ne Baye Doudou Thiaré moo ma tarbiya moom ma jox tarixa tijaan mais amul sikk benn la rek parce que ñoom ñëpp njabootu Baye Ousmane la ñu Baye Ousmane benn jëmm la moom moo tasrufaat nekk ci mboolem fi nekk ci alam bi yaa ngi dégg baa ngi masaar ngi dégg kon ba bu ko defee mu nekk koo xamante ne fu ne ànd nañ fa mun naa ne man maay chauffeur am fépp fu muy dem rek man lay woo nekk ku tabe ku laabir ci xam-xam koo xamante ne dafa yëkkate ay locataire am ñu génn mu yëkkati oustaz fay ko ne ko mbokk taal bi kaa leen ngeen jàng barki bañas ko do koku ku bëgg diiné la ko xamné ko bëgg nit ñi di avancer la ku bëgg ko xamné ay talib di ko xamné topul dara ci bi fepp ñu dem mo yëkëti xaalisam sol ko si otom fay apias kën du fay dara te bu boba te lolu talib dañ ko xamné mu ko defal sëriñam même bu yoru auto sax taxi lay jël fay aller retour ñun talib duñu fay dara ko mbokk ko ñu koy ñaanal yalla bu baaxa baaxa baaxa di wax nañu xam-xam bi taaru na dem ci programme nga fanaan mooy programme Baye daa bi mais teru laa ñëw kon ba amuñu sa fay wax dëgg fa yàlla feebar naa sama digg ginnaaw fii di métti métti yu métti ma jaaxle fu ne ma dem fa moo ñëw ne ko sëriñ ma ne damaa feebar est ce que nekkul dañ maa korte wala dañ maa def dara mu ne ma dinañ dem hôpital balaa dara di xew moom boo ñëwee wax ko feebar rek balaa mu ciy def dara hôpital la njëkk a ñu dem ñu consulté ma defal ma ay garab benn un franc demul si moom moo ko fay lépp ñu ñib si waat dafa nekk loo xamante ne ba ko may dee dootuma ko fàtte parce que dafa am jëf yoo xamante bu la ko jëfee rek da xam ne kii góor la comme ba bàyyi dudu aw ma sa fay maa leen dokkeel bu baax maa leen ñaanal yàlla yàlla sàmm sa njabooti sa sa njabooti baatin yokk mbooloo bi nekk mbooloo boo xamante ne mbooloo yërmande lay doon di gërëm ki nga xamante tamit mooy barxaam barxaam nekk moom laa mujjee xam si zikarkat yi barki Cheikh moom laa njëkk a mujjee xam si zikarkat yi li ma xam si ay zikarkat bari na lool ñoom ñëpp a baax nag mais dafa am ñoo xam ne xëy danga leen di gis rek sopp leen te kii loolu la ma yàlla boole ak moom dama ko mu wax sam programme bi daaw mu ñëw dama ko wax sam programme bi daaw mu ñëw ma gis mu zikar te guddi ajuma yëpp bàyyi aasoo ngi nii fu ne lay sori fu ne fu sori lay jógee di ñëw guddi ajuma ginnaaw raay te lu mu guddi guddi ay une heure deux heures du lay def noonu ñibbi comme ko bëgg yàlla la sëriñ la koo xamante ne ku yëngu ci faj la te ku mën a faj la parce que gis naa euh, wan na loolu yoo xamante ne wane naa kii ku mën a faj la kon mbokk yi fajkat la zikarkat la jànk atul xuraan la du ko yàlla barkeel la moo tax daal maa ngi koy gërëm di ko sant ak équipe bi nga xam ànd nag moom ñoom Moustapha ñëpp waa zikarkat yëpp maa ngi ko defee di dugg ci biir kër gi di gërëm sama papa mi nga xamante ne moom mooy deñ sama yaay tey daanaka boobu xale laaw bu ma mësaana dem ay Dakar ge foofu laay jaar di xaarale pass lu mu guddi guddi naa ko xaar pour bu mu jox ma xaalis jamono ko la jox 1000 francs ay 2002 2000 ki xam nga loolu yag na ba ma ngi jang école ay 99 mu ne ko xamante musu ñoo def lu ñu nakari wallahi lepp luñ ko wax rek dama naan la incha amul problème ma ngi koy gëreum bu baax di gëreum sama yaay di gëreum xalé yi goor yi ak xalé yi jigen yi xamanteni ñu fi ci biir ci biir ci biir kër gi nek sama rak du ko si Bachir jëlee si tamsir ak ñëpp bàyyuma kenn su ma limee du matal ya ngi dégg di gërëm soxna yi ku melni zeda Ami job yóbbante na ma nak néna ma mi ngi gërëm bu baax xari seen li sol ni sama 1 franc de musi yalla xam na ko barke bàyyi sama 1 franc de musi xari seen moo gis na dafa am programme moom bu jël jël ko tissu bi ñoo jox ko ko ne ko def ci programme bi comme boog néna mu ngi gërëm xari seen bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax waxna mu lu bari mais xamna du si xej bu ko defé ma ngi gërëm wa koñ bi lépp li nga xamante ne wër na koñ bi fii su ma limee du ma tamit maa ngi waa maa ngi gërëm waa koñ bi yëpp Aminata Diouf maa ngi koy gërëm tey suba ndox bu bari ak glace bu bari la fi indi ak képp ki nga xam ne jàpp na si ñi nga xam ne jox nañu invitation d'honneur ñu jox nañu invitation soutien Madi Ndiaye ngi ne fa tey ngeen gisee moom ma ko abal yëpp kon kooku maa ngi koy gërëm wax dëgg fa yàlla du ma matal programme bi nag boo gisee ma tudd ak Ousseynou Thior Ousseynou Thior dafa nekk koo xamante ne bu ma tarbe bu ma demee Dakar ñoo ne sëriñ bi bàyyi papa moo ma boole ak yow nee na ma ñëw fii di dox si séeru di fi dox xam-xam mu ne ma macha allah waxtaan ak man ba may ñibbi mu woo Ousseynou Thion ma jël ko bool naa laa ak moom boobu ba léegi nag képp ku mu mos a indi mu tarbiya tamit su ma paree Ousseynou Thion laa koy laa koy booleel. koo xamante ne tey ku mu jot ak moom moo la tooñ kon boog Ousseynou Thion maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax moom ci parrain la bokk di gërëm tamit Jules Chamb muy Souleymane tonton Jules euh, nga xamante ne. tey eh, moom moo rafetal tiktok bi waa waaw tiktokeur lañ koy wax ah. waaw wax dëgg fa yàlla ne koo xamante magu xadara bi si xadara bi laa ko fekk mu fi liggéey bu am solo moo tax tey ma ne il faut ma booleel si parrain yi bu ko defee waa caaja yi xam ne yaa ngi fi yaa ngi comprendre bu ko defee tamit ak Zeda Asubati bi kii bu muy ñëw fecckat la woon Asubati bi nii anamu sax fecckat la woon dafa doon fecc barki Cheikh Tidiane ay sabar moom moo ko doon organisé di di ko fecc fecc moom rek la def tant que ni na fa oyof ko yàlla boole ak may waxtaan ak mom ci yalla waxtaan ak mom ci yalla bu mu ne bëgg na tarbiya mu ko ci papa mu tarbiya ko bu bëlé ndam mu def mom mag bo xamantene lu mako xamal leen ay wajurum sax xamaluñu ko lepp problème bu mu mënta amal la koy wax barki Cheikh Tidiane ko bo koku dama koy njukkeel rek xamne ci si bi la bokk mu ko ne ñaa dugal ak zeda umu Kalsoum eh, mi xal mo ñaari le Cheikh Tidiane Diouf daf ndogu man ak bàyyi Tidiane mi ñu dem mu tegal ñu ay ñamu arjana xam naa fi ñamu arjana ñu bëri xamuñu ko mais enri bi xam nañ ñamu arjana mu teglu ay ñamu arjana da toog rek lépp diñu lay fekk si mu ne ah kii moom il faut ma dugal ko parce que lii moom dafa rëy bu ko defee maa ngi gërëm ñëpp waaw ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ si jootaay maa leen gërëm maa gërëm waa ñaaxar ñu ngi jóge ba ñëw fii mooy sama tante yi sama rakk yi ak waa taate gi ñi tamit kenn desul ginnaaw ñoom ñëpp ñëw nañu ak sama yumpaañ bi nga xamante ne mu ngi jóge jaxaaw jóge ñaaxar moom tamit moom ñëpp maa ngi leen gërëm képp ki nga xamante ne daal ñëw nga si suufu tànt bi Omar gis na la yàlla gis na la yàlla na yàlla jantegi su lu baax te yàlla nañ ko fekkee dem déwnte bu kenn manqué yàlla na yàlla ñoo yokk ñëpp waaw Serigne Mar mii Gàmbi la jëm nii de mais dafa ne il mu wàcc fii kii sama patron la ku baax ngi nii barki Cheikh xam teraanga koo xamante alalam àggul si xol bi de mais loxo bi la yem tey bu yoroon ñëpp xam ne yor na billaahi koo xamante ne tey bu ñu nekkee moo tax neuf personnes la ñu woon moom moo nekkoon dixième bi agni reer ndeki ay naar lañ doon liggéeyal mais même sax naar yi bu ñu dépense sax mom mo jëk dépense du ko jox kon boog kii moom aw ma gërëm ma feebar fa feebar metti mom rek la gis barki Cheikhou Tidiane feebar bu metti la fa feebaroon pour man sax sama ruux bi fofu lay dess mais xam nga rek njabotu ba Ousmane mom du dess ginaaw ba Ousmane njabotam fepp mu dem moo xam ne yaa fa non balaa nga yiki il faut nga ñëw fi mom bo dee fi tam il faut nga ñëw boobu tam kon ma sha allah kon boog koku ma ngi koy gërëm bu baaxa baaxa baax a ko sama rakku papa la tey moom ma indi caajaay bu ma bu ma bëggee xam caajaay sama moom la ma booleel jox ma 9000 francs jamono boobu 9000 dafa bari yoon xotti ma ñaari ñaw nag pour ma ñëw caajaay mu boole maak moom ñu ngi tas église su Grand Yoff mais xam nga deret moom damaa taxaw rek mu ne ma kaay yow la yow laay seet parce que xam na ne man nag sama papa dañoo niru mu indi ma fii boobu léegi nag maa ngi ci witam nekkoon kër gu mag bu ñu jógee fa toxu si fii kon bu maa ngi ko sant ak yaaroo fekk ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi dëkk koñ ba koñ ba heure bu ma xewlee ñooy ñëw koñ ba moom ñom ñëpp ni ko fa jale ko ñom Moussa Seye nak ba ci kaw ba ko ñom Mamour Seye ba ci kaw a kaw a yow ñëpp ma ngi leen di gërëm bàyyi ñu ba ben yoon fep ma xew ñu ngi ñëw maa ngi content ci ñëpp Moussa Seye tamit ma ngi koy bëre nuyo bu ma ko waxee programme dafa ma ne photographe bi ñom Maurice yow ma ak man ma leen di géré kon bëgg ko ma ngi koy gërëm bu baaxa ba diko sant sama dërëm dem aussi wa ak ñi nga tegg kat yi ñu ngi joggé ba euh, ki ana Moustapha ñu fa lañu joggé sax ñu ngi joggé ba Popengine ba passé Popengine nda yaan xawma fo lañ te heure bu ñuy xewlee noonu la ji def même xadara bi ñu amoon taatagin tamit foofu la ñu jóge woon kon boog kooku tamit aw ma fayam maa ngi gërëm waa kër gi yëpp ñoom aw Diouf ak ñoom Ami Diop ak ñoom Zeyda Roqe Diop ñëpp daal su ma limee ma matal mais képp ki nga xam yaa ngi fi gërëm naa sant naa la jël lépp da teg ko si loxo sëriñ bi nga xam moom moo amee ñaan mu ñaanal ñëpp bu ko defee nag fu may jeexale mooy ñaar laa jeexale bi su jiitu bi mooy dañoo amoon suñu benn papa bu baax boo xamante ne fii la nekkon ak ñun nekkon ko xamantene ku ku ku amon cieur la muy sama papa ma juuf xeyna tay suma ko rendez fi hommage si programme bi amna ño xamantene dina leen jaaxal dal. mais fuñu mu sana and heure bu julli bu sana jot mo mo jëk jog julli suma ko waxe buñ ko waxe ata juuf fi yow ya fi mak mëna ma na Omar jité même ñaan sax moom nangu la ñaan dana man na Omar ñaan fépp fuñu mën ta dem rek ne koo xam ne ko joxoon cër la xale bu ndaw mën na ko loo àll ne ko ku baax ku laa biir koo xam ne puso la woon doon ñaw bëri na fi ay diggante yoo xam ne ci ay mag wala ci ay diggante omar yu yooyu moom moo ci doon dox kon ba kooku damay gis ne wax dëgg fa yàlla genre yooyu dafa nekk jëmm yoo xam ne dañu war a toog di leen fàttaliku di wax ay baax baaxam bu ko defee ñi fi nekk mën leen roy parce que fii eh, du dëkk waay dëkkuwaay dëkkuwaay bu mag bii mu ngi fële comme ñu ngi ñaan yàlla balaa ñuy dee rek yàlla na def ñu am eh, ngërmande yàlla mu juuf maa ngi ko ñaan yàlla bu baax a baax a baax yal na yàlla yeesal yërmande ci kawam wax dëgg fa yàlla parce que seqoon nañ loo xamante ne nii rek laa mun a def moom mu xam ne fàttewuma ko moo tax bu ñu demee jàpp programme man ne ko te laa ko bëggoon daanaka boobu mu ngi door a gaañu mais comme na te mu ngi doon door a gaañu saraxam yàggul woon ma ne kon boog yàlla ma yàlla ma fekkee ko déwén bu ko defee ma def ko kon boog bu ko defee dañu ko war a rendre hommage ngi nii sedd mi leen jox mu adan rak sama doom la muy Moussa Dione fàttuñ ko du ko ñaanal le 29 décembre lañ amoon programme frétaté gi yalla mom ko si kon boog kooku saa su ne rek mënuma xëy suba bongo jotta sama xol dem si kooku maa ko ñaanal yalla bu baaxa baax yalla na yalla yeer sa yeer ma dem dama bëggoon rek sëriñ bi si sa rek nga joxe ben ñaan bu ko defee ñun ñëpp ñu ñaanal leen moy suñu papa mo Diouf ak Moussa Moussa John ñi nga xamantene ndeysaan sa sa wet la xewé ba duudu ciar bi moo moo tarbiya moko jox tarikhati jaan parce que ci tuddu yalla la déwé si yëkëti yalla si yëkëti ay ñam diko jox ay jaamu yalla ci la déwé to yoonte bi waxone nak kep ki nga xamane jox nga jaamu yalla mu lek bu suur mom mo gën nga tabax fukki jaaka ak fukki jaaka mu foré ko mo yëkëti ñam diko jox doomu adam mu lek bu suur baxna de len bari lo len di joxe ñam aka bah bari bari lo len di joxe ñam joxe ñam dafa baax amul daru lu ko gën ci jaamu yalla ma len koy denk Allahu Akbar mel ne doon nañ ba jóg mu baay jaamaar wóolu nañ ne yàlla ba jóg mu baay jaamaar dafa ndax majur soo bëggee dégg-dégg sam papa ndax man bama ma amee ans laa commencé jaay si wetu marché ba dend ak waa Modjouf léegi man sama jëm bopp bu ma commencé liggéey njawar mi di jooy nii boobu mi ngi am presque quatre-vingt-cinq ans mu taq ma torop ñëpp jàpp nañ njawar sama rakk la bu ma bokkal ndey ak baay Tandiawar sa marque la man buma bokal nday ak bay ndax mom non la koy dundé sama jabar sax wax naa ko Ndiawar tay ji lu wax ci bitik bi moy am lu mu waxut ci bitik bi amu ndax nit ci bopam tay ji man ak dulu dañu bare lu bare bare bare bare bare bare ndax man febar na fi nek hôpital Fann dafa deux mois Ndiawar ci jëm bopam moo jël sama alal sama bitig sama caabi di ma sàmmal sama alal deux mois su ngoon jotee mu wàcc dem kër ga ah jox sama jabar dépense mu daat koy ñëw indiwaat ñibbisiwaat su xëyee defaat noonu ba deux mois quinze jours mut samal ma sama alal ba ma ñëwaat fekkaat ko si yàlla waan ma ma ñëwaat fekkaat ko si sama alal na ma ko fekkee woon ak sama njaboot nu mu leen téyee woon ndax boobu sama rakk sax njawar lu mu doon doon defal sax sama rakk daaw ko defal sama jabar ndax njawar si jëm boppam su ma ko waxee rek mu ne ma kaasam baa yaa ngi tane di jooy guddeeg bëccëg waaw loolu lépp jub moo ko waral ndax jub googu ngay gis noonu si papaam moo ko si def papaam nit ku baax la woon nit ku jullital won nit ko xamne ne ak yemalewul njawar benn ndax njaar ba mu jele tarbiya papam di commencé wax ñew ba si man di mo expliquer bobu njawar dafa jël tarbiya daal di genn presque njawar 6 h du matin lay genn ba 22 h su ñewé si jamu bopam mu ne ma njawar mi dama koy genné man ko soko genné tay ma fat ko suba ndax sama rakala sama dret la ndax lu metti metti metti man ak mom dundu nañ lu ne parce que nit so dundé mom ñaar fukki at diko ko muy sa alal guddé ak bëccëg xam koku ci bopam sama rak mo bokal nday ak baay sax defal lool motax tax ma ko carrément li ay way la ci mom te nit ci nekké ci julit njawar moma gëna jang fop julit si jëm bopam su féké ni dafa taxaw pour dem si yoonu yalla dang ko fay bo kër ak muy yegg. ndax jour bi nga xamee ni papaam génn na àddina magam dafa téye si loxoom mu tiim ci bàmmeel bi avant ñu koy deñ njool jàng na fa alxuraan yoo xam ni yu doy waar la dama xamul saari moo tax moo xen leen ko noonu fu mu nekk nii njawar ni ngeen koy gisee nii ak papam ah ak magam yi mu maanaan leen nii kenn mënu leen a xaajale lépp di Mawlaay Baay Usmaan ñu ngi koy ñaanal yàlla gudd fan bu ànd ak wër di ñaanal tam yalla yalla barkel njabotam si zahir ak si batin ñu ngi nuyu mbollem ñu nek si jotaay bi yeb waye tam ñu ci jital ki nga xamne ne sunu sëriñ sunu xarit sunu lépp bàyyi doodu caare wa deug waxtaan bi amna solo bu gënoon gudd gën a neex waye nak teunk bi tamit wa deug ñu bari jàngee nañ si lu bari kon ñu ngi lay waxtaan bi dañ ci jàngee lu bari ndax jàngal nga ñu ne diine moom salaasa ñett xaaj la rek te ñett xaajoo ni nga ko tënkee képp ku nekk jàngalekat war a koy jàng boo ko déggee dana la jëriñ képp koo xam ne bëgg nga xam-xam bëgg diine boo ko dégloo dana la jëriñ képp koo xam ne tamit yaa ngi yëngu xam ci dox ci mbiru tarixa war a am wasila boo ko dégloo rek dana la jëriñ kon nag laal nga ci côté yépp bay dodo ñu ngi lay ndokkel bu baax ñu ngi lay ndokkel bu baax wa deug nga si alusmaani yu si joxe xam-xam si am yitte si hadra bi dakat bay Omar Diouf mi nga xamne tay mo moo jotay bi bim ñoy gënaaw gannaaw raay bam and ak yow ba léegi yokkute rek la gis te bari na ño xamanteni tamit si ay mbokam si loxo lañ jaar te loolu amul sikk nekkoon yarakat bu mat nga di nuyu tam waa ginnaaw raay yëpp ndax man yàlla daf ma boole ak ñoom muy nekk nit ñu baax ñu am kóllëre kon nag Baye Doudou ñu ngi lay ndokkeel bu baax di lay ñaanal yàlla yàlla gën a guddal fan yi yàlla gën a barkeel xam-xam bi yàlla barkeel njaboot gi ci zahir ak ci baatin ñu ngi nuyu tamit ñi nga xam ne mooy Baye Mansour Ndour Ndoy mi toog samet di borom ijaaza moom tamit ak Baye mbay Mbaye Souma Baye mbay Soumaré mi egg si léegi nga xam ne nekk naa seen kër lu tollook weer wala lu ko ëpp mu nekk nit ku baax ku bëgg yàlla ko xam ne yaayam tam nekk nit ku baax bi mu ñëwee loolu la ma njëkk a wax sama yaay mu ngi lay nuyu kon nag Baye mbay ñu ngi lay wax bismillah marhaban Baye Ibrahima Ndiaye ñu ngi lay nuyu Baye Seynou Thior ñu ngi lay di ziar baax di leen jox ku nekk waayam Baye Daam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko jox wàccuwaay moom tamit bokk si ñi nga xam ne si kilifa jotaay bi la. ñu ngi gërëm ki nga xam ne tam mooy Seydi Barham mii li ñu wax si moom dëgg la nitu wëlër la bëri na jotaay yoo xamante ni Seydina Omar moo ko oote boo demee moom moo fay jiitu waaye moom moo fay mujj kon nag loolu doy na kóllëre xëñ na guddi na kàdd yi dama koy gàttal rek. di wax ne Baye Omar juuf nit ku dëgg la nit ku bëgg yàlla nit la koo xam ne dafay jokk mbokk ndax kat yàlla moo ne mbir a ngi nii muy mbokk ku ko jokk rek ma jokk la waaye ku ko dagg ma dagg la te boo xoolee li xew si jotaay bi nga xam ne bu dee si mbokkam si yàlla nga xam ne Baye Omar ku mën a jokk mbokk la fu mu dem dana bokk beneen bi mooy boo xoolee si ñi nga xam ne ay mbokk deretam lañ amul bërëb booy jublu fekk ne Baye Omar dugg na fa waxtaan ak ñoom jël si ñoom indi leen amul lu mu dul xew la tamit te doo fa gis mbokkam yi kon nga xam ne Baye Omar ku jokk mbokk la boo ñëwee si kër gi moom ak i rakkam ñëpp dañoo juboo nekk benn joxante cër kon loolu doy na sant yàlla mu nekk koo xamante ni nag léppam Ibrahim la li ñuy wax rek moom laay eh, firnde mooy Seydina Omar saa la woowee rek sa xel si xam-xam rek lay jëm fu mu ootee rek kar téléphone xam-xam lay laajte kon nag nekk na koo xamante ni boo ko gisee rek sa xel dafay delluwaat ci xam-xam boo toogeek moom si jotaay balaa muy jóg il faut question wàcc fa si kon kooku mbëggeelam si yàlla wax dëgg fa yàlla lu ñu mën a seede la nekk koo xamante ni bu ko yàlla mayoon koom jotaay yi waxuma la ben ñaar de waye man na ne semaine bu nek dina def jotaay yu melni ndax da koy def ci jotaay bu gën ci bërëb bi sori te barham mi xamna ci dara dem nañ fi njaarab ba nat bobu wàcc fa wax deug fa yalla nga xamne kon ki ku bëgg yalla la dem ci manding yo xamante ne courant am fa dara am fa waye mu ñew ngir saxal kalimatu la ilaha illallah kon bay Omar ñu ngi lay ndokkeel bu baax ñu lay ñaanal yalla yàlla gën a guddal say fan ñu ngi lay ñaanal xam-xam nga dolleeku ba xam ne dolleeku nga ci xam-xam ñu ngi lay ñaanal sa mëdët yàlla bu mu dagg ñu ngi ñaan tam sa Jamu gi yàlla nañ barkeel ñu ngi naan sa digganteeg sa soxna tam yàlla na jàmm ji gën sax ndax kat loolu bu amee rek ñun tamit ci jàmm rek la nekk ndax kat boo boo ci kër gi tam boo yaayam Omar jël ba indi ko da ko don jël saa ñoon xadar juma sax day jël ànd ak ne ko di nga dem xadar juma kon koku mbeugelam si yalla ak xam-xamam ak xam bi mu xam kan moy Cheikh Ibrahim loolu motax kum taxool rek fay bëgg nga dem xencu ji kon nak euh, ñu ngi nyep ñep di sante ñep di gërëm ñep wax deug ku xol tam jotaay bi nu mu def ak kóllëre yu mu fi saxal ak fàttaliku yu mu fàttaliku ñi nga xam ne tey jiitu nañ loolu rek doyna ne sayyidna Omar nitu la nit la koo xam ne du fàtte démb tey ñu mu tuddee jotaay bi boo xool ñoom ñëpp même génération bi la ñoo xam ne ñu mu doon àndal démb ak barki démb te tey ñu ngi continuer ba ànd ba léegi kon nag Baye Omar ñu ngi lay ndokkeel ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla gën la taxaw si zahir ak si baatin ku xool jotaay bi li nga fi dajara rek xam ne dëgg-dëgg nit ku baax la nit ku mën a jokk mbokk la nit ku mën a may cër la kon nag ñu ngi ndokkeel ñëpp di ñaanal ñëpp yàlla yàlla nañ fi dajawaat léegi ni déwén te yàlla na ku nekk yokk ba yëg ko ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim barke Baye Ousmane